24 mars 2022 moom la ñuy euh, jagleel ci àdduna warngal këpp lépp luy xeex bu jëm ci saxat bi xamante ne moom lañu ñu woowee tuberculose ñu tànn seen dëkk Bambey pour ñëw defi ko bon tey mën nañu wax ne Bambey mooy fii ci senegal capitalu xeexu tuberculose bi xamante ne moom lañ ko jagleel rek tuberculose nag mooy feebar bi xamante ne si feebar yi wàlle mooy feebar bi si gën a rey si àdduna mën nañu jàpp ne fukki million wu nit dana leen rey par at loolu mu ngi tekki ne fanweeri junne nit danañu leen rey par dana leen rey par bés bon nag feebar boobu feebar bu doy war la bu ñu war a taxaw pour xeex ko àdduna bi nag taxaw ne dañ koy xeex parce que dañ ko bëgg génn ci àdduna bi avant deux trente cinq loolu nag dëkk bu nekk war ci bay waaram Sénégal nag ñu taxaw pour génne ko fi mais war nañ ci def ay jéego yu mat parce que boo jëlee Sénégal. am na téeméer ak fukk ak juróom ñett yoo xamante ne mi ngi ci ñaar fukki junni sénégalais yu nekk loolu dañ ci war a taxaw pour génne ko fi pour bu réew yëpp dajee en deux mille trente cinq ñu ne Sénégal moom tam génne na tuberculose ci réew loolu nag am na région yoo xamante ne fa la maladie bi gën a tar région yooyu mooy dakaar mooy Thiès mooy Diourbel mooy Kaolack mooy Saint-Louis ak Ziguinchor téeméer boo jël fanweer ak ñeent nag mu ngi région de Dakar donc concentration bi foofu la taxawaay boobu nag am na ponk ak pas-pas boo xamante ne wane nañ ko ci déjà ci wàllu tuberculose amul dara loo xamante ne da ngeen koy fay dépistage bi ba traitement bu ngeen ko amee rek dem kër docteur amul dara loo xamante ne war ngeen ko fay loolu nekk na ci taxawaay yi xamante ne état bi taxaw na du ma terminer rek te waxuma ci li ma dégg hôpital niveau deux ngeen wax dégg naa bu baax danaa remonter effectivement la préoccupation ñu xool ko dans les investissements yu ñu war a def vers dans le cadre d'un système de santé résilient et pérenne mais li jàmp te jàmp dañu war si taxaw te si loolu sañu ma leen yomb ba deux mille vingt quatre mooy le renforcement du centre de santé de Bambey. docteur maa ngi si doom Ndiaye maa lay boole médecin chef région sur le pilotage de madame le préfet ñu teg en place une matrice très rapide de suivi des diligences à mettre en œuvre pour que le centre de santé soit renforcé dans le meilleur délai, mais aussi pour que le bloc opératoire ouvre le plus rapidement possible.